Música jërë ngeen jëf daleen nag jàmm ci xew-xew biir réew mi tey talaata ñu tàmbalee ko ak ARMP bi nga xamante ni moo fi nekkoon di nekk ci li nga xamante ni mooy saytu waa régulation marché public yi daan nañ ko daal di dakkal ci biir réew mi lépp daal di koy dindi euh, ci ginnaaw bi nga xamante ni député daal nañ daje démb ci altine gi ngir waxtaane ko ci ab luwa boo xamante ni moom moo indi ñu daal di koy dindi loolu nag mi ngi jógee ci ab waxtaan goo xamante ni kii di président Macky mi ngi amaloon conseil des ministres bi nga xamante ni amoon ci fan yee ñu génn léegi nag kenn du waxati ARMP privé waaye ARCOP la ñuy wax muy autorité de régulation de la commande publique nga xam ne léegi njëriñam moom mooy moo saytu lépp loo xamante ne mooy marché public ak wàllu délégation des services publics ak contrat yi nga xamante ne mooy am ci partenariat yi mu nekk loo xamante ni nag ñi di député yi jàpp nañ ne li nga xamante ni lañ indi dina soppi li nga xamante ni mooy indi jafe-jafe yi amoon ci biir réew mi ci lu jëm ci wàllu régulation marché public bi ñu wax ci beneen mbir kii di Macky Sall daal dina jokkoo téléphone ak ki nga xamante ni mooy président bu Ukraine di Zelensky loolu nag mi ngi amee eh, ci ginnaaw bi nga xamante ni eh, kooku di Volodymyr Zelensky daal na ko woo téléphone eh, ngir moom Macky Sall njaari waxtaan ci li nga xamante ni moom moo xew ci àdduna si waaye nag président Macky Sall daal dina ko xamal li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi guerre boobu indi ci koom-koomu àdduna bi waaye tamit ci li nga xamante ni moom mooy Afrique waaye nag tamit kii di Macky Sall daal dina ko xamal ne ko dina indi ab waxtaan fa nga xamante ni moom mooy Union africaine bi nga xamante ni moom moo ko daal di jiite ngir ñu gën a mën a li nga xamante ni moom mooy àq ak yelleef bi nga xamante ni dëkku Afrique yi am nañ ko euh, ci li nga xamante ni moom mooy moom seen bopp ci lu bëree bëree bëri waaye tamit dinañ fa waxtaane li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi nga xamante ni dëkk bii di Ukraine mi ngi koy dund li leen nekk ay mbir yoo xamante ni euh, kii di président bu Ukraine daal na ko génn ci page Twitter am waaye tamit président Macky Sall tamit daal dina fësal waxtaan bi nga xamante ni waxtaan na ko kii di président kii moom tamit ci page ñu wax ci beneen mbir dem ca hôpital bu fànn bi nga xamante ni médecin bi la nekkoon ca service bu réanimation bu hôpital fànn moo daal di faatu moom nag li ñu xamal nag waaye amul benn feebar boo xamante ni amoon na ko ci fan yi ñu génn docteur boobu nag ñu wax ne spécialiste la ci wàllu anesthésie ak réanimation fa nga xamante ni moom moo nekkoon ca hôpital bu Fann beneen mbir muy Sénégal bi nga xamante ni jamono ji ñàkk na xaasu bëree bëri ci jamono ji nga xamante ni euh, frontières yu Mali yi dañ ko daal tëj ginnaaw ay dogal yoo xamante ni dëkk yi bokk ci Union africaine ñoom ñoo ko amoon ngi daal di koy teg ay daan ci la nga xamante ni moom moo lay dund jamono ji ak wàllu junte militaire bi nga xamante ni moo fa nekk Sénégal nag daal na ñàkk lu toll ci fanweeri billion ak juróom-ñaar yu toftal yoo xamante ni ci diggante février ak mars lañ ko daal di ñàkk mu toll euh, ci 60 virgule pour cent yoo xamante ni ci mois de janvier bi Sénégal ñàkk na ko ci lu jëm ci wàllu exportation yi nga xamante ni mooy jugee fa nga xamante ni moom mooy Mali te frontières yi booba léegi am jafe-jafe ngir ñu daal di ubbi. dañuy jeexale ak groupement polyvalent de recherche bi nga xamante ni ñoo teg loxo lu bëri ci ay faux ci diggante Dakar Thiès ak Louga ñooñ la nga xamante ne ay douaniers lañ ñoo teg lu toll ci ñaari milliards ci ay faux yoo xamante ni ci diggante Dakar Thiès lañ jàppee ci lu njëkk nag daal nañu teg loxo lu toll ci ñaar fukki paquet ak ñett ci ay faux yoo xamante ni ay euro la waaye tamit ay faux yoo xamante ni ay dollar la ak ay faux yu bëri yoo xamante ni ay CFA la lu toll ci juróomi téeméeri million ak lu teg ci loolu nag daal nañu teg loxo ñeenti ay nit yoo xamante ni ñu ci biir réew leen fa nga xamante ni moom mooy Thiès ca grand standing ñu doon amal li nga xamante ni mooy raxasub xaalis waaye tamit am na juróomi nit yoo xamante ni teg nañ leen loxo tamit ci mbir moomu nga xamante ni moom moo sooxe liggéey bi nga xamante ni waa douane ñu ngi ko doon amal ci ay nit yoo xamante ni dañoo njortoon ne dañ doon raxas li nga xamante ni mooy xaalis lu toll ci ñaari te ñu teg leen loxo fa nga xamante ni mooy diggante Thiès dakaar ak luga li moo gën a fës ci xew-xew biir réew mi tey jii ci talaata gi ñu jox di daje suba ci yeneen xibaar.